sa àdduna taxala rek boobu loo si salle bi gars yi. waaye seet si nga am bii naaj bu tàng waaw xam nga ma jox loolu de mais yaa ngi si formule waaw yow luy loolu mais sax yaa ngi ñaq nii teg ci super oh. super forme ci saa waay mais dee si booli jël avance yi bàyyi avance yi ngay delloo bon ko avance avance laay wër avance ngay wër te bu la yow mbër nga kan mooy avance quatre fois xam nga booy tëngeej bi daal dob dob lu Tëngéej am na ku ma mën a dellu avance am foofu. mooy xam nga Gamou Gueye. Gamou Gueye Tëngéej ku dul Gamou Gueye su ma fa duggee du jóg. nga <laughs> naan ma ay Gamou Gueye. kooku mooy kan. Gamou Gueye jëloo avance am kooku moom moo la wax loolu. duggal si réseaux sociaux yi nga xool. man réseaux sociaux laay dugg. taluma réseaux sociaux je kon ku dul gàmmu Gueye bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam. boo amee connexion duggal nga xool. bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xoolal dugguma réseaux sociaux jéem moo vérifié Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rekeju. waaw loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. Ndiaye Seck. Gamou Gueye ah gis ma ko de waaye gaalam mu ngi nële. gaalam waaw mun nga woowoon gaal bi. gaal bële la mu ngi nële. mooy gaal gële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm gële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Guèye. jaajëf jaajëf. jaajëf. Eh, boo ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. dem na gàllankoor.

Samba Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ maa jox en Samba Gueye taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. nga dem nga war añ leen seen añ. yow nekkal góoru yàlla waay yow. eh tooñoo leen ma gàmmu moo a tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ko man ngi koy wër ci dëkk bi. Isaac mais yow mbër bi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais ñëw na fi ruube na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi mais lii combat booy barki alxuraan karim billaay gàmmu ngay bu ko jàppee da koy teg bokkul sax gis nga gis nga lii bokkul sax fa mbër mu mun gàmmu ngay fan la ko ko teg yow lu ngeen wax lu ngeen wax di comédie billaay comédie la mais yow est-ce que yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow wóor na yàlla koy daan nan ko jàppee dafa def teg sa attention wóor na yàlla ci da koy daan wóor na yàlla def erreur boo xam ne nii yaa ngi daan sport nan la koy daan da koy daan mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi mu la ma xam nga la ma kii day tëgg Ama Gueye ak Tapha Mbeur loolu du làmb ma ne ko loolu du làmb loolu combat la ban combat loolu combat la bu mu nekkee combat combat la bu mu nekkee combat lan parce que combat bi taxaw na le 24 décembre bi 2022 mhm. mhm. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène nationale ak waa Yarambar Events dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko du yow sa kër ngay toog waaw man stade laa jëm kon dinaa la woo téléphone fa la may fekk dinaan sama yu sedd loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allahu arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche acca mbokk internet ci Wassare Lamb ñu ngi nuyu encore une fois gannaaw bañ demee fële sa Pikine euh, fekk fa sox mu ndaw ñu ngi fi si koñ Talfa boo tuddee Talfa nag tudd Cambérène tudd Parcelles xale yu yëpp nekk si ginnaawam mu nar a bëre bërëb euh, comme bër mu xam ne euh, Sénégal yi ñëpp ko bàyyi xel muy kii sox bu ndaw bu ndaw xam ngeen ko waaye Talfa TV nee naa sànq waxoon naa ne xam ngeen ko ne fu mu toll nii yëpp moom lañuy waxtaanee àdduna bi yëpp moom lañuy waxtaanee nañu dugg si biir xool supporter Talfa yi fu mu toll nii nan la ñuy waajalee di bii combat. salaamaaleykum maa naka la yéen ngi kuul ñu ñëpp supporter Kabe lañ bokk donc dañuy dem xoolee saay kum tubi naka la. man Abou. Abou waaw ngeen waaj seen combat xanaa pare rek. si ñoom soq laa jógee nee nañ combat du yomb seen tey de. non day wax lu ko neex rek suñ arbitre bi sifflé moo teemu daal. ñu du daan ko. bu xeexee ñu duma ko. combat bi day gaaw moom suñ mbër du xaar. arab bi sifle moo tee mu jeex. ñoom ñoo ngi woy benn woy naan ay waxut soob la rek. Eh. ay soob gamer bi la. gamer bi la naa si sant alhamdulilah. sant gu wér. man la Oco. da ngeen bi tey. pare nañu fépp. waxtu bi rek nañuy xaar combat bu jeex. dër bi nekk dër bi. dañuy jàpp rek mu jeex. ñun ñoo mos a mën mosul nekk dër bi. bon loolu. daa soog a affaire bi talfa kase toos ñun taapatuñ loolu soo ko bu ndaw xoola moo ko bàyyi si géew bi bu siflee rek mu mooy loolu yaa ma gën a xam ah. waaw. mu daw ci loolu wax si yéen. ah waaw ba booba rek. ba arbitre bi bëree mu xam lépp dëgg la soo ko ndaw day day xaar. kese. billaay walaay talaay soq bu ndaw tey lay xam lépp dëgg la maa ci bara waxkat la daaw bëri wax ñu xoolal bu dal baa la tus bu xaar rek ñor na Aliya Cambérène 2 la nii. Aliya bi nañ ma xool kon. salaamaaleykum. mbër naka. waaw sant yàlla la. Daawda. Daawda waaw. na ngeen waayee combat jàpp gan gi dóor ko daan ko gas ko suul ko ci biir stade bi ñibbisi. kan bi tamit noonu la neen noonu def. ñun ñoo ko gën a pare lool ban taxawalee lamb ji lañ pare woon dóor ko gas ko suul ko ci biir stade bi. dëgg Pikine Parcelles. jàpp ko suul ko ci stade bi ñibbisi. moo ñu fi dese. ani na ngoon ga wasaare lamb ana filmeer bi eh. salaam lan kana kan ñooy bëre <laughs> ma ne kan waa Talfa Talfa na ko yàlla may ndam bu sedd guy mais boo duggee ci biir nga wax gars yi nañu benn billet ma dem stade supporté amaguma billet boobu tey te fajar laa fi kaasal ci man amaguma billet man. talfa la fura soq dañ koy ba daan ko suul ko bi benn yoon. soq dañ koy rey soq bi dañ koy soq comme dugub nit ñi soqee dugub lañ koy soq dañ koy soq si dabe dañ waaw. ma. waaw ah, sant bu wér nii. waaw ah, Mor lañ koy wax Mor Mbaye. ñoom soq ne bu leen jàppee tey jii moom lu ñu wax ma ko wax. mais xam nga rek moom dër mu daanu lay xam. soq soq day xaar quoi. ko woon wax moom. na xaar ba ñes lépp ay daj bi lañ la ñu. bi. bu mu arrière rek. da taxaw rek. Eh. mooy loolu. bu xeexee. su xeexee ñu duma ko daan ko. wallaahi soq lool de. soq yaa yaa imaam eh, imaam eh, eh, la. non papa kan yaa imaam waaw. yaa imaam kay waaw ñu ngi nii rek. loolu ngeen waajal combat bi rek. waaw combat bi ñu ngi koy ñu waajal comme ni ñu doon waajalee yeneen combat rek. dem stade jàpp soq jàpp soq bu ndaw rek daan ko mu jeex ñu ñibbi si waat. bu xeexee. bu xeexee ñu ñu dóor ko mu daanu bu bëree. ñu jàpp ko daan ko. seen wax ji xam ngeen sax. non xam nañ ko bu baax mais tamit ñun xam nañ ki ñu yor de barke yàlla. dañ ñun xam nañ ke ñu bu baax a baax. waa ji Sokh dë du day ñaax loolu dafa leer nañ. yow li ngeen soqee am. kooku du fee du Thiès kooku noonu benn jooy la kii dal bu bi la amaana. benn jooy keneen moom amul jooy la. kee amaana xoolal làmb ji nii dañ koo suuxlu quoi li ko ndis bi wax laa koy waxaat dañ koo suuxlu. ndax amaana bu dee bëre bëre bëre rek barki Seydina Mohamed kii da koy jàngal bëre te doole carrément yéen gis ngeen doole carrément kon lamb ji booy bi amul chance dañ koo suxlu ki talfaa la xalaat ñaax dal bu dal baa da nga sa pain am sa yaasa lapin ragalul tous. lu neex yaasa lapin. dal ba sa dee Fall naka. waaw eh, ni daal lépp jaamu la. waaw waajal combat bi gis na daf lu nice ñëw fii nii yaa a xam. xam ne suñu mbër moom am nañ tout confiance si si bépp cadre nag waaw nax xam nañ ko moom xamante su ñun xam nga daanaka magewuñu dara booy bu ndaw la dama gul fenn yàlla defal ko lu mel ni nii lu ñaanal ko mu yokk si kanam xam ne ni moom am na gëm kii jarul sax ñu koy conseillé dal bu dal ba jarul sax ñu koy conseillé moom xam na tuur duraay fu mu jëm Sëriñ Tuuba ah waaw suñu adversaire di ko ñaanal rek mu ñëw si jàmm yaa ma gën a xam def ati bu nice lu nice loolu ñu daan ko su lu nice senegal jëm kanam xam dal bu dal baa rek moo xewle ku koy boo kooku boo ñëwee stade da lay dalal bu nga firi def lépp boo ñëwee xolol baax na kenn du wax. incha allah da nga laqatu day laqatu day laqatu. waaw laqatu. wax ba am boor bañ jël la. tur bi naka la. aada ñu ngi jël de waxal. tur bi naka la. aada bi jàll. aada aada waaw waaw. aada nga tudd. waaw. loo xam si Tal Fall. am na moom dara. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi naka la. Rama Bié. da ngeen waajee tey combat bi. combat bi rek dañoo kontaan moom nii rek suñ doom ci yal na ko yàlla may ndam rek loolu rek lañ am lu ñuy wax ci moom. mu dóor mu daanu wala mu bëre. na bëre wala mu dóor mu daanu lu ci indi rek waaw ndam rek lañ bëgg ñun daal. nday nday waaw. no no loo xam si Talfa. ah xanaa dem bëre daan ñibbisi. yàlla dañuy dem kay dañuy dem daan jëmbale ñibbi si waat ah ragaluñ ko ragaluñ loolu mafia bi la kala ah ñu ngi koy xaar nu mu ko noonu rek. Hmm. booy piste ci avance. lan Talfa nga. ka man sama lépp sama lépp la Talfa. ñu ngi koy waajal ñun suñu mbokk suñu waaw. ñu koy waaj ak suñu mbokk ñun ñëpp ñu ngi waaj làmb ji ñu koy waaj bu baax billaahi waaw. sox mu yoon. sox mënuñoo mënuñoo daan mënuñoo yëngal talfa lay waxal de gémër bi bay sëñ Bamba waaw. xool kii la am wàññi tike yi. kay dewloo ay mboqam. door ko ko talfa moo ko gën a dañuy baaxantal bëre daan ñibbi barki Serigne Saliou Mbacké xoo ku yéex du gis ji xoo du gis jël bi ndam rek waaw billaay walaay Baye Fall yëpp ñëw nañu on est prêt de lépp waa Pikine ñoo ngi ñëw ak ndey doole on est prêt de tout barki Serigne Sall si musique si ndey lépp barki Serigne Touba Mbacké Khadim Rasoul suñu bakkan lañ si ndey teg jarama borom dëru waaw talfa gaya talfa gasa talfa gasa talfa gasa talfa gasa Talfa kese dalbu dalba Talfa kese dalbu dalba Talfa kese combat bi si lan lay jeex xeex wala si bëre combat bi doo ma ne doo ma ne lépp lu mu indi mu ñu suñu lool lépp lu mu indi bu indee la ñu suñu borom ñu suñu borom naas eh, waaw eh, ragal ah, ah. da wax si xeex wala si la ngay nan dem si digg géew dina nekk dal bu dal baa dal bara daa kaas ak di la mooy loolu noonu. lan mooy dal bu dal baa. yoo xam nga dal bu dal baa yow. la dal bu dal baa mu nekk dalal ndànk dal ndànk boo ko defut mooy loolu noonu. yàgg na. loolu waaw. Baye Fall yaa ngi nii Baye Fall yaa ngi nii ñëpp a ngi nii Baye Fall yëpp ñoo ngi nii. Baye Fall dañuy añ xaaral ba pare. jaay maa man. bëgg naa la de waaw. ngay waaye combat bi waaye ndam rek gaan bàgg sëñ Touba dal bu dal baa bi rek gaan. mais waa Pikine dañoo pare de. ñoo leen gën a pare fop. sukki sëñ Bamba Mbaye ñoo leen gën a pare fukki téeméeri junni bu mag la 1 ba yoon la. lamb xale koy def. mais soq xale la de soq moom. sax. tal judduwul laa la wax tal amul at. 2002 la 2002. amul at amul daa juddu rek précoce. lu leer laa lay wax. Ndiolaye bi duñ leen daa judd rek précoce. daa judd rek précoce. la xale xale koy nax kuy jooy du nax kuy jooy. xanaa doo xool Franc Franc moo daan soxla mu wax lañ lay wax la woon fa woon rek Franc moo jàpp soxu gaañ def ko lu yomb Talfa ne na ko arbitre ma xool gémewër yi gaañ gémewër yi man la suma waay nan dey su ma leen xoolee rek damay xam ne yow man la suma waay duñ yàgg man ak laa la wax gémewër yi nan dey wala xam nga lu nante yow waaw moo tax ma la nante yi bu leen Talfa xoolee rek day xam lu mu war a def. lan bëgg mu def fi mu toll nii xam naa li mu wax lan bëgg mu def fi mu toll nii mu dóor wala mu. fii lay commencé fii. day xelal ren de. loolu daa métti loolu daa métti gëlëm boo koy rey fii ngay commencé rek. waaw ah, na ñu rey gëlëm nañ koy rey rek wala bu seddee moo tax ñu rey ko reyu kañ dafa dox loo ñu rey ko reyu kaña nag reyu kaña mooy reyu soxor yooyu noonu mooy dóori soxor yooyu yooyu noonu day ñëw am nañ problème Fall dal bu dal baa la xalaat ñaax la bare bare combat benn jooy la rek mais waa Pikine ñoom duñ jooy duñ duñ waay duñ tus duñ dara combat bi jooy ween jooy la rek barke alxuraan combat bi jeex na bu yàgg gars yi ñooy dem stade nii rek. combat bi bu ngeen daanee yéen bi ngeen amee ndam fële la mën a yóbbu. ay wax la kii waay. ay wax la kii. ak sori. bu ñu demee bu paree surtout. waaw doon gars fu ñu yóbbu fu ñu yóbbu gën a liggéey gën a jaande gën a góorgóorlu. merci jërëjëf. Pokola Pokola daa daw combat bi. ñu suxlu ñu suxlu Sokh 2 bu ko bu ko soog daane soo ko dël soo ko mag lañ jëm. faxas joxos joxos bi. day faxas joxos. moo day faxas joxos. faxas day tax. waaw da ngay xoolee Talfa soo ko dël ngay bànn bànn la su la jàppee nga xam moo dara yow xaar bañ jàpp la rek. nice nice soog doo yow bu la jàppee xam nga dañuy naan sook mais yow dañu lay sukki xaar bañ jàpp la rek comme ni ñu sukkee ginnaaw noonu la sukkee yow. waaw tur bi la. comme niñ ko daan paree rek. mais bi ak combat yeneen ah, loolu dëgg la mais champion moom xam nañ ko parce que tout le temps ñu ngi ak moom te xam nañ li ñuy liggéey li muy liggéey tamit. combat bi nga amee ndam fa la mën a yóbbu. bon fi mu ñuy mën yóbbu ñun xam nañ ko moo tax ñu fonk ko respecté ko tamit hmm, xam nañ ki ñuy bëreel tamit. combat bi dafa nar a gaaw dafa nar a jeex. non ñun moom pare nañ lépp moom parce que ba mu commencé ba depuis bi ñu signé contrat ba léegi wax dëgg yàlla toogu gars yi bëri ne combat si xeex lay jeexee. waaw mën na nekk parce que bu bëri dóor lañ wax man na jeexa ci dóor mën na jeexa ci xeex. salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka la. Amdi Moustapha. da seen combat. tey non booy bi liggéey na waañ na joxe na cër respecté ñëpp moo tax tey làmb ji làmb Parcelles la làmb Cambérène tey ñëpp ñëw ñu ngi ànd ak moom di liggéey ba tey dernier jour xam nga jour làmb moom feet la boo xoolee xam ne ñun moom jour làmb feet la moom booy bi moom miin nañ loolu gamer la day game waaw. dërër Pikine mais tamit mais tamit booy bi bëriwul dër bi moom mooy bëre komba ndax combat bi dafa am fu mu ko jëmee quoi. booy bi niveau bu mu nekk nii dafa war a bëreeg booy rek dañoo bokk yoon mais mais yàlla xam na ne bokkuñu classe sax billaay wallaay dañoo bokk école nii rek mais bokkuñu classe booy bi Baay Faal la taalibe la gis nga bésam nu mu mel nii nii rek mooy loolu te jàmbaar la bu àll bi siflee gars yi nañu xam dara. jàpp nga ni si combat maanaam nee ne combat bu gaaw. non ah ah ñu ay gamer lañ ne ça dépend ci ñoom rek ñoom ñooy choisir ça dépend ci climat bi rek bu niisee mu xaw a sedd mën na ñëw mu gaaw. mais bu dee climat bi neex na comme nii waaw mooy mooy loolu ñu kons ko rek waaw mën nañ ko consé booy bu ndaw lañ ñor. ngeen cons la ma la mën nañ cons 25 minutes ba prolongation bépaar xam nga ko cons ñu nag jaasi pël waaw moo tax ñun xamal ñun moom làmb ñu cons kaag ñu kii yëpp lañ yemale waaw làmb la daal ñu ngi waaj waaj nañ ak suñu mbokk suñuy xarit suñu am di jàmm ñëpp ñëpp ñoo jàppale ko te booy moom gis nga yaa ma gën a xam dal bu baa gis maanaam euh, kii Tapha dafa wàññi poids. non c'est liggéey bee métti rek xam nga booy entraîné ñoo xam ne ma la suñu waay niveau bi mooy loolu dañoo xaw a aj baar bi quoi xam nga lu ñu am fii Pikine amuñu ko bu dëgg neexee rek yéen gis ngeen fii ngay préparé combat mbëru parcelles yi ñëpp ñëw jàpp ci amul mbër mu ndaw amul mbër mu mag li nga gis fii xam a gisoo ko fenn gars yi mën nañ 100 pour cent mais seen 100 pour cent duñu ko mooy loolu duñu contact duñu laalante de fii nag dañuy naanante ndox dañoo wóolu wax ñu ñëpp benn lañu moo tax moo tax moo tax ñu koy ñaanal ndam mooy loolu di ci woo zone 8B bi zone 8 yëpp di ci woo waa Cameroun Grand Yoff Aslam Grand Yoff Aslam Grand Médine bàyyiwuñu kenn dina ci inte yëpp waaw di ñaan yàlla defal ko ndam rek waaw waxal Libaas Gueye mo jàpp daan ñu bi leneen ñun xamuñu xalaat xalaat ñaaxa billaahi wallaahi taalaay yàlla moom mi nga ne mooy may ndam yàlla nañu yàlla may ndam sokk mu ndaw barke alxuraan bu nu moom la moom ça dépend rek moom mooy xool rek moom nee na foofu coolu maa am la coolu maa am la moom moo war a diriger mooy ñuy wax nu ñuy def luñ lu mu def rek ñu def na ko la ca def waaw mais moom barki alxuraan ba fu ñu mujj moom yàlla moom ñun yàlla faral si kattanu la ko waa waaw soq bi dinañ déranger. waaw soq bi dama koy déggoo boobu ni ko waxanaat kan waa ne dama koy dama lay gém gém ñu ne sa ginnaaw. xëy ko moom noonu mbër maa ngoog xale bu jigéen yooyu eh wàccal ma ñooñu wàccal ma ñii dool booy xal booy taxaw leen baax na baax na baax na def leen ndànk rek taxaw leen joxal ñi rek xale yi ndaw yi rek. joxal xale boobu si ginnaaw joxal xale yooyu xale bu ndaw xale yi ndaw yi. yàlla ñu may ndam la kay. Ah, Voilà.

mbër ñu ngi leen nangul wax dafa nekk say bagage aja baa maa Boros. Gündüzler. Sultan. Okay. waaw. dara du xew. waaw.

koy fay sa jàmbaar Mass Parara. Parara tey nga waaj ko. combat bi xanaa simi dàll yi Mathieu Rosa yi xam nga Sokh moom dañuy xale la xale xam xamul yàlla waaye xam na yat bu ko Talfa jàppee dina dina xam ni xaalisu làmb yoonam nekku si te boo demee nga ni Sokh iPhone du iPhone mais ndaanaan du naan ci ndaa yaa ngi dégg le petit frère le bon petit frère tuniso venu dor dans sa corbeille tout rose et tout ni plus que sako le bras pourquoi ne veut-on pas que je retiens dans mes talfa bu ko jàppee dina mel ni tànku fas. lii résistance la wala station la. la talfa moo ko jar yaa ngi dégg sokku nag boo demee nga wax nga wax li ma la wax daal boo demee ne ko xale xamul yàlla mais xam na yat waaw loolaa loolaa am lu ma koy yóbbu. bu xeexee ñu duma ko. ñu daan ko ndànk. barke sëñ Bamba Seera Fall. déggoon waa talfa déllu bu mu nar a daan sokku mu ndaw dina mel ni bàkkaaru tubaab. Ah, jaajëf Fall. <laughs> waaw jaajëf. Bakar Touba. salle bi gars yi. waaw seet si nga xam ne salle heure bii naaj bu tàng bi waaw. xam nga man ma de. mais yaa ngi si formulé. waaw yow luy loolu. mais sax yaa ngi ñaq nii teg ci super. Oh. super forme. ci ko avance avance laay wër. avance ngay wër te bu la nga delloo ko. lii yow mbër nga. kan mooy avance quatre fois. xam nga booy tëngeej bi Tëngéej am na ku ma mën a dellu avance am foofu. mooy xam nga Gàmmu Gëy. Gàmmu Gëy Tëngéej ku dul Gàmmu Gëy su ma fa duggee du jóg. nga <laughs> naan ma ay Gàmmu Gëy. kooku mooy kan. Gàmmu Gëy delloo avance am yow. kooku moom moo la wax loolu. duggal si réseaux sociaux yi nga xool. man réseaux sociaux laay dugg. taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire. kon ku dul Gàmmu Gëy bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam. boo amee connexion duggal nga xool. bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xoolal dugguma réseaux sociaux jéem a vérifier Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rekeju. waaw loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. xam nga koy ah gis ma ko de waaye gaalam mu ngi ne la. gaalam waaw mun nga woo wan gaal yi. gaal bële la mu ngi ne la. mooy gaal bële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm bële. voilà amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Guèye. jaajëf jaajëf. jaajëf. Eh, booy ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. dem na gàllankoor. xanaa du bii mooy gaalam. gaalam la kañ. waaw kon anamu mun nga ma wan gaalem waaw wàcce nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. ana ana gaamu eh, gay laa Gamou Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ maa jox ensemble ba pare taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. yéen añ leen seen añ. eh tooñoo leen ma Gamou moo a tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ko man koy wër si dëkk bi. Misaan mais yow mbër mi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais na fi ruube na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gàmmu gay bu ko jàppee da koy teg bokkul sax gis nga gis nga lii bokkul sax am mbër mu mun gàmmu gay fan la ko ko teg yow la ngeen wax yow di comédien bi tay comédien la mais yow est-ce que yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow non ko na yàlla koy daan non ko jàppee da def teg attention ko daan ci da koy daan fa nak de wóor na yàlla koy daan erreur boo xam ne nii yaa koy daan lan la koy daan koy daan mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi ko lama xam nga lama waaye ci li mu wax sama gaay kii day tëggale gàmmu gay ak tafa mbër loolu du lam ma ne ko loolu du lam combat la. ban combat loolu combat la. combat bu mu nekkee combat. combat la bu mu nekkee combat lan. parce que combat bi taxaw na. le 24 décembre bii. Mhm. 2022. Mhm. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène national ak waa Yaram Art Events. dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko. du yow sa kër ngay toog. waaw man stade laa jëm. kon dinaa la woo téléphone suba teel fekk di naan sama yu sedd. loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allah arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche.